asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu Baay nee na almayitu bil jihaadil asgari shahidun walmayitu bil jihaadil akbari siddiqun wasiddiqu afdalu min alshahidi fa ulaika maa alladina anama allahu alayhim min annabiyina wasiddiqina walshuhadaai walsalihin Baay nee na ki dee ci jihaad gu ndaw gi te mooy toolu xare kookee shahid la maanaam ki dee ci yoonu yàlla ki dee ci jihaat gu mag gi te mu xeex ak sa bakkan noot ko ba du la waxloo wala mu def loo la naka sa dul noonu kooku siddiq la maanaam ku déggu dëgg ci yàlla ki dëggu dëgg ci yàlla nag moo gën ki ci yoonu yàlla ndax bi yàlla di tudd ci alquran dafa njëkk a tudd yonent yi teg ci ñi dëggu dëgg ci yàlla teg ci ñi dee ci yoonu yàlla door cay teg salihuna yi radiallahu anhu wa nafaana bih axukum fillah ibrahima jimjaam ar rais